passe réflexion salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna euh, bës bu rëy bës bu màgg bës boo xamante ni moom la aduna bépp di waajal muy waa IFHOT IFHOT nag institut de formation la en hôtellerie restauration et tourisme IFHOT madame Ndiaye di waajal journée bu mag muy journée mondiale de la femme. asalaamaaleykum monde asalaamaaleykum ñoo ngi bëggee gaa yëpp di leen ziar bu wér a wér a wér di leen wax tey ñoo ngi fii. di préparer suñu journée suba incha allah la 8 mars voilà ñoo ngi fii set yi ñoo ngi si préparation yi si yenn affaire yu bëri tey di ngeen ànd ak ñun ñu wan leen affaire yëpp nu nuñ ko préparer bopp ba geen di fourche à la fourchette lépp lépp lépp lépp amul peur gaay let's go let's do it. asalaamaaleykum mbokk àdduna asalaamaaleykum nee nañ leen sax bu ñu jógee rek am na lu tax ñu jóg bu nee lu tax ñu jóg yéen ñu gën a xam jigéen ñi bu nee jigéen ñi nga xam nga ni tey ñoom ñoo ay ci biir fot kuddu fourchette lépp lañ leen di wan paaka lépp ci biir dama ne la tey bisu set setal bi la tab mbir mi suba la ki ma taxawal ni kenn dootu ko laam-laamati tamit ci biir Sénégal ci biir Sénégal dama koy bàyyi mu nuyoo yaay ba maa ngi lay siyaar. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Salam Vision Ifot Vision ñun la la madame Ndiaye directrice Ifot maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal bu baax ci seen teewaay seen teewaay neex na ma yéen ma ngi leen jaajëfal ci seen teewaay ci suñu journée set setal bii ñuy préparé le 8 mars tey la 7 mars élèves yeeg waa UCG ñëpp ñoo fi duñu ñu ngi tey yi ñu gis ni tey ay ndaw ay yu fi nekk ndaw yu gëm seen bopp tey ji ngeen jël xale tey ji di leen tàggat bisu tey bi ne tey dafa bëri ay doon jaar tey di jël tey góor yaa ngi naan di set setal koñ bi tey ji tali bi ku ko xool xam ne carrément léegi saa yi wàq ngeen suuf si tey ji daf ngeen loo xamante ni tey ji maire bi tey moo doon a jël engagement tey ji def ko taxawaay bi ngeen ci am tey ji xanaa am ci taxawaay kontaan ak mbégte parce que boo xoolee élèves yi il faut dañoo ñëw engagé wu euh, ñoom ñëpp ñu ngi fi depuis ce matin depuis 9h lañ commencé ñu ànd ñu ah, waa ICG ñëw accompagner ñu ci journée bi dañu woote woon set setal boo xoolee depuis ci suba ñu nekk ci nettoyé zone bi nga xam ne zone bi nga xam ne fii la école bi nekk muy IFOT Kër Massar terminus 111 wax dëgg yàlla xale ñëw nañ pour l'instant ñoom ñëw nañ mais xaaj bi de toute façon ñun ñi ngi fi daal ba heure bu fii satee rek pour dindi suuf si waajal journée 8 mars bi parce que 8 mars bi jaral nañu lu ne jaral na xale yi lu ne waaw tey jii euh, comme ni nga waxee 8 mars bi tey jii jaral na tey jii ku nekk tey boo xoolee tey jii xale yi nga xam ne yéen yéen leen di jël tey jii di leen tàggat maanaam léeg nga yor xale yoo xamante ni dama yàlla baal dañuy xaw a dëgër bopp tey jii yéen tey jii est-ce a ngi pare léegi pour naxante ak xale yoo noonu waaw ñun côté boobu dañ ciy sant yàlla ñun waa IFHOT parce que ñun école la école de référence lañ yore parce que boo xoolee école bi c'est une famille soo xoolee suñuy publication dañ naan IFHOT est une famille élèves yeeg ak ak administration bi ñëpp benn lañ élèves yi yaru nañ bëgg nañ seen métier bëgg nañ école bi te école bi jaral na leen lu nekk kon ñun amuñu problème boobu yàlla dañoo dimbale ci suñuy élèves luñ bëgg ci ñoom dañ koy am fu ñu leen woo sax élèves yi ñun sax ñoom ci boppam ñoom ñooy ñëw proposé ñu ñun direction proposé wuñu élèves ñoom ñoo ñëw direction ne lii lañ bëgg a def ñu fekk si leen ci kon ñoom dañoo déterminé wu waaw ñun amuñu problème ak ak élèves IFOT yi macha allah. parce que daal que daal ñoom daal dañoo gis seen ambition daal. waaw IFOT dafa am IFOT day def effet IFOT dafa am ambition parce que dañuy jàngale parce que école yi bëri bo ba école yi bëri nañu mais jàngale yi bokkut ñun IFOT est une famille ñun dañ lay jàngal tàggat la. ba pare nga ñeme suñu nga da ñeme administration bi ñeme directrice bi ñeme ñëpp parce que boo xoolee ñun ñëpp ay jigéen lañu majeure partie bi ay jigéen lañu góor ñi boo xoolee bariwuñu mais góor ñi ak jigéen ñi ñaari école mais dañu bokk dañu mel ñu bokk ak baay ñun IFHOT macha allah IFHOT est une famille élèves yeeg ñëpp ay ay ay ay famille lañu ba pare ñun ñëpp benn lañu wax dëgg yàlla franchement. ndeysaan xool seddati na su ma xool seddati na yéen a ko gën a xam le 8 jigéen ñi ñoo ay nee naa la tey la koñ bi tey ji di set ba nga yaakaar ne tey ji asamaan na fi wàcc déedéet dañoo gëm seen bopp ndax kenn du ifot sama gaay man ak yéen yéen a ngi may doog a gis waaye tey laa leen di wan tey ji ci biir ifot lu leen kenn dootul wanati man ak yéen man ak yéen ci biir ifot tey ji biir Kër Massar arrêt 71 ci école bi ak biir ifot tey ngeen di xam ne ifot lu waa doon jaay ñoom jënd nañ ko ba lem ko ba duggoo ko seen i poos takk ko seeni i kër ifot ci biir ifot ci man man ak yéen ci biir ñu dem. vive ifot. le mars ñu jox rendez-vous ñi nga xamante ni ñoo dëkkee Kër saax ak di ko wax. dina nekk bés bu doy waax bés bu nga xamante ni nii euh, dina am ay exposition yu doy waar yoo xam dina am foofu mbooleem élèves yi nekk ci école bi ak jàngalekat yi ci lëkkaloo bu ñu lëkkaloo ak madame Ndiaye ngir mën a fësal li nga xamante ni moom lay jàng ci école bi kon bu ko kenn tardé. ma DJ Ouz maa ngi leen di jox rendez-vous le mars ca IFOT Kër Massar unité 4 bu ngeen ñëwee ba ci terminus 71 bi ñu ngi defee yëf yi nag ci buntu école bi kon rendez-vous le mars waa IFOT ñoo woote man DJ Ouz fekk leen ma fa maa ngi ci biir. c'est la classe réflexion. la ko professeur. man moom xam naa ni moom bëgg naa doon professeur waaye xam naa ni du yomb ndax dama dëgër bopp loolu moom Sénégal ñëpp ko xam ci man professeur maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay. waaye nga am jàmm. ñu ngi am jàmm bu baax ñu ngi lay fay bu baax a baax. alhamdulilah professeur tey jii li nga xamante ne tey jii euh, jigéen ñi def nañ ko yow tamit wax dëgg fa yàlla nga ñëw tamit jàpp tamit ci mbir yi nekkak ñoom tey jii taxawaay bi nga xamante ne tey jii am ngeen ko mu doon bisu tey ak suba taxawaay bi lan la. Mhm, jërëjëf euh, waa Kiki TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di rafetlu laaj bi xam nga initiative yu mel nii d'habitude fiñ ko doon gisee mooy ci entreprise yi mais tey nag dañ ko indi ci école yi parce que ñun dañuy partager toujours suñu expérience lépp lu ñu gis mu baax dañuy sawar di ko def euh, ci école yi parce que euh, IFHOT bii ñu nekk tey euh, nekk école de restauration boo xoolee dafa bari jigéen la majeure partie ay jigéen la ñu malgré que formation bi aussi am na ay góor waaye c'est-à-dire li nga xam ne mooy moo tax a jóg bés bi mooy sargal jigéen ku ne xam ne ne 8 mars c'est au niveau international ci la sargal jigéen donc dañu ne pourquoi pas pour une grande première ñu gis école boo xam ne tey dafay màggal jigéen ñu gis école boo xam ne tey day sargal jigéen ñu gis école boo xam ne tey day delloo jigéen li nga xam ne moom la mérité muy cër bi nga xam ne am na ko ci biir société loolu moo waral tey ñu def initiative bi ci li ñu nekk nii tey mooy set setal bi parce que comme li ñuy wax rek ndab boo ci yekk dafa war a set kon nag tey ndab la ñuy defar nii bu subaa lii rek lancement la bu subaa kon lii war na promettre que ne lu rëy moo fi nar a am incha allahu rabbi non loolu sax gis naa ko ndax boo xoolee tey ñi fi nekk nii mag ndaw ak mag ñeeg ñëpp tey jii xoolee tey jii ni tali la maire tey moo ko waroon def tey jii euh, wax dëgg fa yàlla tey yéen ngeen jël tey initiative bu mel ni tey jii tey bu leen nekkoon tey ngeen ne le 8 dañuy def programme dem noo si ji wala xam nga wane leneen mais tey ngeen a xool koñ bi tey ni koñ bi tëddee ngeen ne carrément da ngeen yére sol seen i culotte sol seen taxaw waa koñ bi sa satal gox bi bi ngeen demee ba ci biir ba créé idée boobu noonu tamit xale jigéen ñi tamit ñoo tamit nangu ak yéen tamit idée bi ngeen am tey yéen ñi lan ngeen gën a xalaat ni laal carrément lii mbégte gi lii la waaw euh, dañuy boole utile ak agréable xam nga mooy ni ma la ko waxee c'est-à-dire tey nit ñi il faut ñu jàng lu bari mm-hmm. gis nga bu ñuy def euh, di bale mhm. ñu ñëpp la waroon tey yàlla moo dogal ñoom ñu tànn leen mu doon seen liggéey te métier bu noble la donc tey nit ki ak lépp looy mën di def da nga war a société bi daf ci war a am njëriñ mhm. xam nga tey bu fekkee ne bale nañu tali bi mhm. ñu gis ñan ñoo koy bale ay étudiants ñan ñoo koy bale ay élèves ñan ñoo koy bale ay professeurs ñan ñoo koy bale administration école bi cest di loolu tey day may fit waa koñ bi ñu xam ne kon ñiikat am na loo xam ne ñu ngi ko nar ci xale yi parce que lii dañ leen a organiser parce sa gox nit ki doo am participer ci loo xam day jëmale sa société kanam lu mel noonu moo tax ñu initier set setal bi waa koñ bi sax dañoo waroon génn ñun ñëpp ñu bokk ko bu ko defee dañuy mën a bale ba sori bëri xalaatoon nañ sax dem ba 71 ba parce que bu setee rek ñun la setal suñu quartier la parce que fii la suñu école nekk suñu quartier la parce que fii la ñuy yeewoo suñu quartier la parce que fii la ñuy defee suñu événement loolu moo waral ñu jël initiative bu mel nii defar set setal ba mu set parce que nee la ndab li balaa ñu cee yekk day set voilà loolu nga tey euh, dafa nekk loo xamante ni tey ji exemple la boo xamante ni tey képp kuy ndaw dëkk ci benn gox yaakaar naa ne boo jógee ci loo noonu ngir samp ko nit ñi dañ la ci war a mën a taxaw tey ji yéen lii avant ngeen koo def tey waa dëkkandoo yi tey ñoo waroon a jug te cinq heures du matin ñoo taxaw leen ndaxte boo xoolee fii ñu ci bari dëkkuñu fi yéen ñu ci bari de dëkku leen fi tey ji mais bu ngeen demee tey ji boo xool gox bi nga xam ne carrément kat yéen yéen a ngi fi te seen daara fi la nekk seen école fi la nekk tey da ngeen a ay xam-xam tey def ko tey ji ci ci kon yaakaar naa ni buram kër yi kenn ku ci nekk waroon na génnee benn peel wala mu génnee benn kudd ñëw ànd ak yéen dooleel leen yokkal leen li nga xamante ne tey ji moom ngeen ci def waaye ñun tam dañ leen di remercier parce que li tax ñu leen di remercier mooy ñun saa buñ jugee rek saaxaan taxul ñu jug buñ jugee rek jàmbaar yi la ñu wëri ba gis leen taxaw ànd ak ñoom parce que ñun am nañu fulla goo xamante ni bu ñu gisee ni ci yow yaa ngi ci yoon ñun ñooy pare pour accompagner la wane la ba askanu Sénégal ñëpp xam ne kar ñii ñoo jar wane waaye nag bu fekkee ni nag yow jaroo wane ñun duñ déplacé wu ba ñëw taxaw naan dañ lay wane kon waa IFOT waa IFOT dama koy wax ba muy ñetti yoon IFOT nga ca ngàllaa ma ndaxte li ngeen def képp kuy ndaw képp ku yor daara képp ku yor école tey ji di jàngale yaakaar naa lu mel nii da nga ko war a mën a jël samp ko tey ji parce que initiative bu noble la initiative boo xamante ni nit ku ne tey war nga ci mën a jël exemple kon li ci kanam rawati bët xam naa ne guddi la ak ak ak suba ah, léegi nag waaw mooy suba c'est-à-dire dañuy lancer un appel euh, suba dafa am lu xew mm-hmm. te dafa bari surprise mm-hmm. duñ ko wax fii mm. mais li ñu mën a wax mooy neuf mën nga ñu see junj. waaw waaw neuf heures ku mu fi fekkul doo am place. Ah. te soo amul place li xew ci biir yëpp doo ko fekkee lu bari xew na suba incha allah lu baree bari mooy xew mooy li ma la wax rek surprise kenn du ko wax kon dootul doon surprise on se donne rendez-vous demain incha allah. du samay wax waxam la waaye nag dinaa leen xamal ne leen surprise ca 9h man nag léegi dama ne woon damay dem waaye damay faral ba suba ak jàmm ndax surprise bi laay bañ mu réew ma élèves yaa may ree bu ma garaawut ndaxte surprise foo ko dégg rek. foo ko dégg rek foo ko dégg rek bu nee mes dootoo ko séddati kon surprise boobu ñoo koy jël denc ko kon man ak yéen ba suba tey du ma fi jóge te ñu war leen ñu am ci bànneex ak mbégte Tagaas na organisé nañ ko moom mu nekk suñu directrice école ñu ngi ci sant di ko ci gërëm parce que initiative bi dafa allah kontaan na ci moom tam dañ koy ñaanal yàlla bëgg ko ba li mu bëgg ci xolam suñu borom yeggale ko ba yeggale yéenam ci bàcc seen i naam xam di lancer message aussi que ñun jigéen ñi ñu am référence ci moom. parce que jigéen bu baax la. jigéen ju nangoo liggéey la jigéen ju am yëg ci doomu aadama la kon yaakaar naa ne référence la ci àdduna surtout suba mu nekk le 8 mars ñu di ko mu mu organiser lii ñun élèves yi fekk si ko ci loolu amal kon yaakaar naa ne lu neex la war a doon di woo autorité yi ak euh, sénégalais yëpp laay wax sax. Ah. première édition fii di Kër Massar ñu àndoon ci ak département bi ñu demee ci télé yi nga xam ne ñoom ñoo am service communication yi ak organisation bi waaye deuxième partie bi tam dana ñëwaat mu des une troisième partie bi lépp itam bëgg a wan askanu Sénégal li nga xam ne mooy xew ay jigéen di forme naka la ci fot di dundee ak naka la ci fot di tàggatee ay ndawam ba tax tey ñu soxla li nga xam ne mooy journée de mouvement de la femme du 8 mars Μας είναι πολύ περισσότερο με τη φρεγκάρη, ίσως άμα δεν διόρθω, στον αντικό μας που πήγαμε τη μουρά και κρονών, αυτά δεν πήγαν κάτι, έχει παρόμονα. Ο τίποτα λίγο τη γρήγορα. Βάκε δύο είναι αλλά πρέζα και που φύγει μόνο στα παιδιά έκανε. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله waxuma Fana kese mais je parle de tout le monde képp koo xam ni gis nga référence ci moom rek war ngaa war a mën a ñëw teg sa tànk ci journée bi xool nga xam ne bu soobee suñu borom dina réussir ndax jigéen ñi lañ fi toogal jigéen ñi lañ fi nekkal kontaan nañ trop ci waa vision salam kontaan ci élèves yi kontaan ci ñëpp macha allah di wax ne suba nañ ñëpp teel a yeewu nga fi ku nekk sept heures na la fi fekk comme ça ñu teel a préparé suñu journée bu ko defee mu réussir ci jàmm ñu ñu ñu am victoire am ndam ci bàyyi seen i macha allah kontaan nañ. ok message bi nu muy doon ak euh, appel bi. message boobu loolu sama camarade yëpp wax nañu lépp daal li may ñaan même bu nekkul 8 mars bi j'invite à tous les jeunes passionnés de restauration ñu ñëw ci école bi parce que école bi c'est garanti formation garantie et ak emploi garanti man daal loolu rek laa amoon kon daal su ma leen déggee bu baax kon daal léegi gis naa slogan bu am solo bu ngeen di faral di def mooy ñu porté kon macha allah yàlla yàlla may ñu. la classe. IFOT institut de formation en hôtellerie restauration et tourisme IFOT moo leen yëgal xew-xew bu rëy bi nga xam ne dañ ko amal le 8 mars muy journée mondiale de la femme IFOT fas yéene cee màggal jigéen delloo ci njëkkal jigéen ñu ànd ko ak ki nga xam ne moo di directrice bi di madame Ndiaye madame Ndiaye di dafay lëkkaloo ak ay élèves lëkkaloo ak jàngalekat yi nga xam ñoo nekk ci école bi ñu daal di delloo njukkal jigéen le 8 mars foofee ci ci Kër Massar unité 4 bu génnee ba ci terminus 71 bi. jigéen ñi ñoo woote sargal leen jigéen foo mën ne ñoom ñoo fa ne am ngeen jom am ngeen fula am ngeen noo leen di liggéey ba sunu xol ñun góor ñi di ci neex